mais inéluctablement. kenn mu gagner élection bi au premier tour. ci configuration loolu loolu attends loolu. Amadou Ba pour mu gagner premier tour moom mën na gagner premier tour sur le papier. waaw mais naka la koy gagner tey te loolu nag moo jafe loolu moo jafe mu def le trop plein de benn Bokk Yaakaar loolu mooy lan ça voudra dire que dina neutraliser Mame Boye Diao Mhm. ba buy jël du jël plus de deux pour cent dina neutraliser bun jon ba buy jël du jël plus de trois pour cent dina neutraliser alungu yi ba buy jël du jël deux pour cent maanaam il faut que ñi bokk bennoo Yakk Bokk Yaakaar yëpp am ay scores yu marginaux à commencer par seen fief maanaam il faut que par exemple ku mel ni Mamboy perte Kolda à part Kolda ak Casamance li ko war a Doura Doura Baldé boobu fexe ba contenir ko Mm-hmm. bu baax. Doura mën na contenir. non damay hypothèse laay wax. Mm-hmm. dama ne pour que amado Ba mën a gagner damay teg ay hypothèse laa wax il faut que Doura boobu contenir ko bu baax ci Kolda ak Fuladu ak li ko wër. il faut que sàmm Ndiobène Ka contenir bu baax Aly Ngouille Ndiaye leader ak li ko wër il faut que euh, buñ jonn te comprend bañ def yenn escort yu ngandi te comprend mais ñooñu bu ñu defee score yu mag rek mooy par force faaw dong Amadou Ba dafay dem deuxième tour. maintenant Karim Wade su bokkul dafay gën a yombal opération pour Amadou Ba c'est ça le problème parce que bastion PDS yi ils plus portés à voté les candidats historiques. ka ay ka ay Sonko ki ay diggante Idrissa ak Amadou Ba waaw na la seeni voix ci ñaar ñooñu lay dem loolu moo tax Karim jàpp ni sax Amadou Ba <laughs> moo ko moo ko moo ko tere bokk parce que ñàkk bokk Karim dafay arranger Amadou Ba tu vois donc y a beaucoup d'hypothèses nga xam ni mais man mais est-ce que nañu xaar euh, bu ñu euh, insha allah comme ñu ngi préparé affaire. man maa la promettre ni naa la jox résultat bi bien avant.